tey nag dañu daje fii nga xam ne fi le service national éducation information def dalam ma profité ci occasion bi sant le comité d'organisation de Touba Serigne Ousmane Mbacké ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo ko yor ci li ñu jàppale ba ñu mën a am fii fu ñu mën a teg suñuy tànk loolu moo tax tey ñu teew fii service yi nga xam ne nag ñoo gën a impliqué wu ci organisation magal gi tey ñoo fi teew muy service national hygiène ak capitaine Fallou sar xam nga service d'hygiène ñoom avant màggal gi ñëw nañu sañ fàll bu jëlee parole dana ci gën a ñëw ci li leer fii tamit am na fi service SAMU national nga xam ne ñoom it bu docteur Wade jëlee parole léegi dana ko gën a leeral ñoom ñooy saytu ambulance yooyu nga xam ne ñooy faj doomu aadama yi ak euh, ñun suñu service nga xam ne depuis cinq jours tamit ñi ngi fii di def ay action de sensibilisation màggal gi boo xoolee léegi dañ ko nguur gi daf ko organiser Euh, teg ko ci loxo ministère de la santé et de l'action sociale ci njiital ministre de la santé ah jox ko nag médecin chef de région de Diourbel docteur Mamadou Dieng màggal bi yëpp région médicale moom moo koy piloté ànd ko ak district parce que bul fàtte ne màggal bi Touba waaye dafay impacté ci yeneen euh, yeneen ville depuis Dakar day am dispositif bu fay ne euh, Thiès ñi fiy ñëw ci nit ñi buñ ko doon xayma Euh, ci tubaab ñu ngi wax six mille cent vingt quatre mooy euh, juróom benn junni ak ñaar téeméer ak euh, ñeent fukk ak ñeent mooy pour màggal bi yëpp waaye ci loolu cinq mille cent cinq mooy junni ak ñaar téeméer ak juróom ñooy nekk fi ci goxu Touba ñi fi ñëw dañuy def li ñuy wax consultation foraine mooy màggal fu ay nit bari même boo demee foo mën a dem bu am pèlerinage day am. couverture sanitaire parce que nit ñi mun nañ fa feebar wala am ñu xam dañuy am feebar indiwaale ko foofu donc foofu ñu taxawu leen seen njëriñ nag mooy taxawu pèlerin yi ci dans l'urgence ku ñëw sa bopp métti ñu liggéenti la ba sa bopp sedd nga mën a def sa pèlerinage loolu mooy njëriñ bi te tamit lenn li tamit 182 points de prestation mooy euh, euh, téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar mooy totalu Euh, point de prestation waaye ci Touba 132 la muy téeméer ak fanweer ak ñaar. 2007 ba léegi maa ngi fiy ñëw 2007 maa ngi doon dal kër sëñ sëñ Baara kër sëñ Fallou bi mu ñu liggéey ba métti trop métti trop 2007 ba léegi moom yàgg na xam nga ma am ba 2020 ma ñu jëlee ma foofu yóbbu ma bayti bayti ren laa fi am 3 ans. ñu ñëw di dimbale ñu amuñu xaalis bu ñu def ci askan bi mais am nañ doole suñu doole boo xam ne dañuy ñëw di faj si nit ñi di dimbale ñi nga xam ne dañoo feebar sonn ñu leen dimbalee di liggéey di daan suñu doole daal di liggéeyal sëñ Touba sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg di ànd ak wér ak mboolu mu jullit. mi national balaa ñu ko implanté fii sax chaque màggal dañ daan ñëw dañ daan dajalee ambulance yi matériel moyen yëpp ñëw euh, daf suñu màggal temps boobu euh, hôpital Matlaboul Fawzayni moo doon base bi euh, waaye depuis daaw dañoo ubbi base fii ci Daaru Marnaan base bi nag lépp lu lu ñuy def dakaar danañ ko mun a def fii maanaam antenne la délocalisée boo xam ne numéro 15 15 bi comme dakaar moom ngay oote Euh, médecin yi ngay jot moom nga fiy jot ñi nga xam ne ñooy uyu appel yi tamit ñoo ngi fi kon nag de moyen la pour jege population bi ci seen soxla ci urgence soxla urgence boobu nag euh, liñ ci soxla mooy képp koo xam ne mu ngi ci urgence soxla nañu xetali ko te xetali nag moom euh, bi ci gën a gaaw mooy mu am numéro boo xam ne képp koo xam ne soxla na mu oote ci te loolu la la ñu def muy quinze 15 boobu quinze 15 boobu sax mun na dimbali yenn ñi pour euh, bu ñu soxla woon pompier sax bu ñu oowee jotuñu pompier bu ñu ootee ci 15 15 bi sax ñun mën nañu ak si régulation bi ak euh, moyen communication yi ñu am ba pompier yi gën a jege sax ñu mun a xettali en attendant pour ñu def ni ñuy wax médicalisation secours. donc euh, situation yi nga xam ne moom mun a am fii Touba euh, situation yi pour gérer urgence yi la. yenn saa yi dina am ay accident ay accident yoo xam te tamit yu grave lay doon si biir Touba bii tamit ñëpp xam ne ni trafic bi bëri na trafic bi métti na tamit ndax ñëppay jaxasoo muy oto yi muy euh, piéton yi muy charrette yi. donc foofu si biir dëkk bi tamit interpellé nañu si yu bëri si si si si accident de la voie publique yu am ñoo ngi interpellé tamit si biir kër yi xam ngeen ni tamit dem bëgg dikk bi dafay metti donc personnes age yi ak ay personnes yoo xamante ni mënuñu dem à domicile à du moins si si établissement public de santé yi wala si centre de santé yi wala si poste de santé yi ñooñu tamit dañuy interpellé su lu lu mel ni consultation à domicile wala euh, euh, si lu mel ni urgence mais lépp rek dañ koy lëkkaloo ak euh, waa région médical ak dispositif bu ñu def si moo xam si post médico avancé yi la moo xam si hôpitaux yi la moo xam si centre de santé yi wala ba si poste de santé yi. service national de l'hygiène ni mu ko baaxoo defee noo ngi fi depuis le 20 août. ak renfort boo xam ni région bu nekk quatorze régions yi fu ne benn véhicule jóge na fa benn pick-up ak chauffeur euh, ak en tout cas ci wàllu nit ñi lim bim dem mat nañu téeméeri nit ak ñaar fukk. autorités yi jox nañu ministère de la santé service national de l'hygiène jox nañu li ñu yittewoo woon d'ailleurs ministre bi sax jaaroon na fi ba évaluer euh, li ñu yittewoo woon ci produit macha allah euh, mairie Touba aussi appuyé na en produit comité d'organisation bi donc la ñuy liggéeyal def li ñuy tuddee pompe kër yi. Eh, lu ëpp junni ñetti junniy kër pomp dañ leen ak barab yi nga xam ne ñooy barab yi ñëpp yi daje muy jumaa ji di résidence Xaadimu Rasuul yi di di jàkka yu bëree bari ak ay daara li mu daara yu bëree bari ak barab yi nga xam ne ñoom la ñu waajale janaasa yi mbal bàq yi ak kii bi foofu yëpp pompe nañ ko Euh, mais comme mënunoo dugg ci kër yëpp jàpp na nañu am na ñetti guddi yoo xam ne oto yi génn nañu ñu puudar biir Touba pour wàññi weñ yi ak yooyu ak yëpp loo xam ni dana mën a lor dana mën a dana mën a euh, nank luy gàllankoor wér gu yaramu euh, ku jaay yi ba léegi ba te xeex ak xeex ak yooyu di naawit li ñuy wax délarvation maanaam fekk walax njaan yi fi ñu nekk bala ñoo toja bala ñoo génn ñu fekk leen fa xeex leen ko aussi am na équipe boo xam ne mi ngi ko doon def loolu daal ci tënk mooy li nga xam ne mooy technique yi am nañu équipe boo xam ne moom moo doon topp ndox mi di saytu ndox mi euh, suivi qualité de l'eau ñoom ñoo dañuy def bactério bi maanaam ci biir ndox mi dañuy càmbar ndax amul xeetu doomu jàngoro yi nga xam ne dafa lëkkaloo ak dem àll ba yi moom la ñuy wax péril fécal ak yeneeni xeetu euh, euh, bon bon ay tooke yu ñu ciy xool loolu tamit ñu ngi ci xool qualité eau boobu aussi am na camion yooyu état bi jox comité d'organisation ñoom it dañ leen di gunge bi ñëwee ñu xool leen yi ci sell mën a duy ndox ñu bàyyi leen am na ci ñaar yu ñu am na ci yu ñuy recalé ndax xëy na dañoo seenu dafa bari xomaag xomaag wala mu nekk yoo xam ne si daal euh, euh, melul ni mu war a mel. comprimé purificateur d'eau bi ñu ngi wax jigéen ñi aussi naka la ñuy utiliser eau de javel bi ak euh, comprimé purificateur yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo. am na beneen équipe boo xam ne moo topp camion vidangeurs yi oh, la yooyu tamit xam nga état bi daf cee jox ay ab lim bu bari ci camion yooyu. lu mat ñeenti junni rotation 4000 rotation danañ ko defal comité comité bi bi ñu ñëwee xool nañ leen yi nga xam ne si amoon nañu sikk wax nañ leen ñu réparé ñi nga xam ne am nañu sikk suñ mun la réparé génne nañ leen bokkuñu ci ñeneen yi ñi ngi duy ñi ngi ñi ngi liggéey comité bi depuis booba yàgg na ñoom tamit ñoom it ñi ngi leen di topp ndax ñuy mën a yóbbu lu ñu lu ñu duyee ci kër yi ci mband yi ñu yóbbu ko fañ leen ko sant ndax am na ci ñoo xam ne aussi bu ñu génnee fii bala ñoo sori am neneen nu ñu def kon am na équipe bu leen topp am na aussi beneen équipe boo xam ni euh, moo mooy mooy mooy mooy topp euh, topp dugg ci jabi ndax am na ñoo xam ne si dañuy profité ci màggal gi indi euh, ay ay xeetu ñam yoo xam ni yii dañoo yàqu yii gàpp ba dafa jàll lu ci mën a am rek ñooñu ñu ngi ci biir marché bi ay fani fan ñu ngi fi génne nañu génne gun nañ ci lu ëpp ñaar lu mat lu ëpp fukki bëri ko maanaam mooy deux tonnes ci loo xam ne si mooy euh, xeetu bernde yi rek yi ñuy naan yi ñuy ànd ak yi dem ci cin yéeg ak yu demee noonu yoo xam ne valeur bi daanaka mat na million ak genn wàll. moo ngi topp waañ yi waañ yu mag yi waañ yi wi dem nañ wilaaya dem nañ isbu tarxiya dem nañ waañu kër sëñ Fallou dem nañ ci waañu mag yëpp daal eh, ñafa ne ñu gunge leen ci xalaat ak ak waxtaan ba nga xam ne ñam ya nga xam ne dañ leen di jëfandikoo mu ñu wokk ci biir berne bi te kenn du leen togg ñu ja ñu sàllonteeg ñoom ba nga xam ne niñ leen war a décontaminer nañ leen war a niñ leen war a désinfecté ak lañ leen war a ak lañ ca war a def lépp ñu waxtaanee kook ñoom wala ca tamit jox leen ay ay ay ay ay comprimé jumtuwaay yi nga xam ni mooy aquatab yi nga xam ne moom la danañ ko def bi ñu jugee Ndakaaru ci ndigalul suñu directeur monsieur Bara Gaye donc sur instruction aussi du ministre de la santé et de l'action sociale gis nañu gisante nañu ak MCR gisee boobu sax moo ñu permettre vraiment ñu ñu ñu tënk lan la ñu war a dérouler comme activité de communication de sensibilisation donc ci biir tënk boobu noonu moom jox nañu ay ay yoon nañu kat ci région bu sañoon ak période bii mu tombeel ñu communiqué maanaam ñu waxtaan ak askan wi ci lu jëm ci paludisme sibbiru ñu waxtaan ak ñoom ci lu jëm ci euh, feebar yi nga xam ne mën naa soqe ko ci ndoxum ndoxum taw mi ngi mitaa wala ñi nga xamante ne dañoo génnoon seen i kër war ca delluwaat donc naka lañ leen war a sensibiliser leen ba nga xamante ne bu ñu delloo ndax kat dañoo war a dalal ay gan naka la ñu war a comporté woo mais aussi ci seen hygiène hygiène individuelle maanaam lu jëm ci raxas loxo yi ak ndox ak saabu def ay dispositifs de lavage des mains ci buntu wanag yi ak yu yu demee noonu pour que hygiène en tout cas ñu mën ko assurer ci ci biir ci biir màggal bi wax nañu tamit nañu waxtaan ak euh, saareen yeeg soween yeeg ci lu jëm ci wàllu euh, feebar maladie chronique yi donc su ñu dama leen utiliser rek comme alibi mais wax nañu ngir ñu waxtaan ak képp koo xamante ne dina ñëw ci màggal gi ci lu jëm ci feebar bu mel ne jabet wala tension ak yu demee noonu ñi nga xamante ne daal dañuy topp traitement tey te ànd ak feebaru dëkkaale ñu ne ñu wax maladie chronique nañu respecter seen traitement yi mais aussi li nga xamante ne moom lañ leen digal pour que ñu war di xewloo noonu ñu ñu ñu jéem ko respecter donc bi mu bi ñu ci loolu ci lañ ñëw ci district bi ànd ak région médicale euh, bu Touba bu Mbacké donc ñu tënk ay activités yu ñu war a dérouler de manière opérationnelle ci lañ tàmbalee ak ay caravanes donc ci biir caravanes yooyu sax ànd nañ ci ak euh, acteurs communautaires yi ne Touba le réseau voilà des acteurs communautaires de Touba euh, donc ñu sillonné mën naa ne ñaar fukk lu mu néew néew ñaar fukki localité ci biir ci biir ci biir Touba sillonné nañ ko donc ci biir Mbacké lu mu gàtt gàtt moom it euh, euh, visité nañ lu mat euh, fukki fukki fukki fukki bërëb fukki localité ci biir ci biir Touba Mbacké donc fukki quartier donc yooyu noonu permettre nañu vraiment ñu échanger ak population yi ñu poser ñu ay questions ñu laaj ñu ci seen wàllu wér-gu-yaram ñu tontu leen ci li nga xamante ne moom la ministère de la santé et de l'action sociale di def ak di waajal def pour couvrir màggal màggalu màggalu Touba bi donc ci échanger nañu ak ñoom ñenn ñenn ci ñoom may nañ leen ay produits Aquatabs yu bëri parce que région bi euh, waa Adémance dañ ko jàppale euh, fukki million nga comprimé Aquatabs donc ñu doon ko distribuer waale ci màggal gi ngir gën a mën a sellal ndox mi ni mi ñuy jëfandikoo donc may nañ leen loolu may nañ leen ay produits ay produits d'hygiène lu mel ne euh, eau de javel bi lu mel ne savon liquide yi entre autres ak ay dispositifs de lavage des mains mais aussi waxtaan nañu ak ñoom ci wàllu wér-gu-yaram d'une manière générale surtout jigéen ñi tamit sensibiliser nañ leen parce que kat du période màggal dafa jot rek dañoo war a bàyyi seen wér-gu-yaram surtout jigéen ñu wérul ñi mu sooxe donc rappelé nañ leen surtout tëdd ci moustiquaire bi dëgg la naam dañuy dalal ay gan mais tamit ñoom dañoo nekk ci ñi nga xamante ne dañoo vulnérable maanaam pour euh, jàngoro dugg leen dafay yomb donc ñu fàttali leen seen bopp fàttali leen naka lañ war a naka lañ war a euh, comporté woo donc dem nañ ci teen yi comme fu mel ne Mbàkke dinaa ko cité fu mel ne Njaayeen donc dem nañ ci teen bi foofu ñëpp xam nañ ne presque Mbàkke ak tubaay yëpp la ñuy ravitaillé woo wala boog ñi ci ëpp fa la ñuy ravitaillé woo ndox donc mayee fa ay ay comprimé ak waa TAPS mais aussi waxtaan ak chef de quartier bi chef de quartier Ndiayène toog nañu ak moom ci ndimbalu suñu directeur ñu jébbal ko ak ci ndigalu préfet bu département Mbacké ñu jébbal ko ay kit d'hygiène jébbal ko waale moustiquaire c'est le lieu aussi de remercier ñu remercier waale euh, waa PNLP donc ca Mbacké jot nañ ci suñu activité rek yu ñuy def bokkul ak yi nga xamante ne moom la district bi jiite woon joxe nañ fa 200 moustiquaires lu mu néew néew maye nañ ko population bi ñi nga xam ne dañuy dalal ay gan ak ñi nga xamante ne xëy na soxla woon nañ ko te mënuñ ci woon a jote donc ak communication de proximité bi ñu def permettre nañu daal vraiment ñu mën a ratisser large mën a dem ba ci local di gën a reculer fu mel ne Bobareel fu mel ne euh, Ndoyeen extension nga xam ne ay sancaan lañ koy woowee donc ñu saafoonteeg euh, communauté yooyu donc waxtaan ak ñoom ci wàllu wér-gu-yaram d'une manière générale. donc def nañ tamit ay émissions rajo yoo xam ne ay émissions intégrées la yoo xam ne dañ ci ratisser l'argent vraiment l'antenne été été était ouverte nit ñi mën di woote di la wax seeni soxla ña fa toogoon toogal fa ministère de la santé ñu mën leen indil ay tontu yu leer bañ jógee ci loolu yit dem nañu wax dëgg yàlla ci suñu hôpital bu bees bi nga xamante ne président de la république vraiment daf ko jagleel département bi jagleel ko euh, waa Sénégal jagleel ko sax mën naa ne sous région bi muy hôpital Cheikhul euh, Cheikh Ahmadou bàmba bi Cheikhul Khadim donc dem nañ fa gisante nañoo directeur bi waxtaan nañu ak moom ci lu jëm ci wàllu communication bi hôpital bi def mais aussi offre de service bu am solo bi nga xamante ne ñu ngi koy def ci jamonoy màggal gi ñu toll donc euh, profité nañ ci jox leen banderole benn banderole ñaari banderole yoo xamante ne ci ndimbalu USAID euh, Breakthrough Action lañ ko lañ ko lañ ko defaree donc pour que ñoom tamit ñu mën a euh, renforcer seen communication donc am na ci kanam incha allah fii ak ay bés yu néew. dina am yeneen i liggéey yoo xamante ne danañ ko def ak hôpital boobu noonu bu muy un joyau boo xamante ne Sénégal moo ko moom ak yeneen hôpitaux yëpp incha allahu rabbi pour gën a améliorer communication ba nga xamante ne ku fa ñëw sax di fajoo si di nga fa jëlee ay information à travers seen télé yi ñu ñu teg foofu donc y a un vaste chantier que le directeur du SNEPS a initié mais lool xam naa dina ci dellu siwaat beneen yoon pour ñu gën ci mën a mën a mën mën a waxtaan Birahim mi wax na ne euh, euh, SNEPS am nay activités yu mu déroulé surtout dans le domaine de la communication mais loolu bu amee dafa am ñu jàpp si euh, jàpp euh, SNEPS jàppale SNEPS pour mu mën a def liggéey boobu te ñun UNICEF si lañ bokk donc ñun euh, toogal nañ fi UNICEF pour appuyer les activités de communication on l'a fait par le passé mais dans le cadre du Magal Birame wax na ko ñoo nañ fi weer ak genn wàll si ginnaaw pour recenser les besoins en communication de la région ci liggéey boobu liggéey nañ si ak ku toogal UNICEF au niveau de la région muy madame Soxna Ndiaye miy toog ko nu mu ko waxee plan d'action boobu moom lañ ñëw def mise en œuvre fii euh, avec la région donc ñun UNICEF ñoo permettre à, en tout cas euh, au SNEPS de mener une partie de de ces activités boo déggee Birame wax l'essentiel de des activités yi ñuy def fii communication la mais balaa ñuy ñëw fukki fan wala fukki fan ak juróom si ginnaaw. au niveau national commencé nañ communication bi parce que am nay spot yu ngeen di dégg ci rajo yi ak ci télé yi euh, les télé nationales et les radios nationales dans le cadre des mesures de prévention euh, pour les populations balaa ñuy ñëw màggal parce que ñun dañuy communiquer avant nit ñi ñëw màggal donc CEPS loolu la loolu développé avant muy ñëw mais aussi euh, activités yi ñu développé au niveau opérationnel pendant ces ces dix jours là bi yi ñu fi def c'est des moyens qui ont accompagné ces activités là wax na fi ay kit yu ñu jox ay sëriñ daara ay chefs religieux ak population yi euh, les populations démunies pour leur permettre de de de prendre des mesures préventives pour euh, def euh, màggal bu màggal bu mucc ayib donc yooyu yëpp. dafa am ay partenaires yu yàppale ministère de la santé pour ñu mën a def activité yi donc loolu la amoon li ma ciy wax ci appui bi nga xam ne waxuma la sa UNICEF sax mais am na yeneen partenaire comme Birahim laa di ADEMAS ak ñoom Croix Rouge ñoom euh, Breakthrough Action OMS jàppale nañu système de santé bi pour mu développer activité aussi bien technique comme Fallou laa di mais de communication pour permettre population bi ñu ñëw def fi euh, màggal boo xam ne bu ñu fi jógee ku nekk day ñibbi ak wér gu Euh, fekk njabootam si jàmm. sant journalistes yi nga xam ne ñoo fi teew yéen ñëpp madame le ministre jox nañu ndigal pour que ñu gëna a ci sensibilisation bi danañ dugg ci kër yi dem ci waañ yi bu ñu jógee fii léegi dañu war a yóbbu produit yi nga xam ne moom lañu indil comité d'organisation bi ci jumaa ji ak résidence li wër Touba moom ci ak ci kër yëpp yóbbu nañ fa lépp li nga xam ne dana dimbale jigéen ñi ci waañ yi ak muy gel yi muy euh, li ñuy raxasee loxo yi madaar yeeg saabu yeeg yëpp. loolu service bi vraiment góorgóorlu na ci salaatu